Bienvenue sur Salam Vision. bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billahi al azim alhamdulillahi allazi an'ama alayna bil islam wal iman rabbil alamin rabbana bi ni'matihi alwan rahmaani rahimi bi ibaadihi fi lquburi bi rawxi wa rayxaan maliki yowmi diini yaxkumu ala ibaadihi bil adli والإحسان إياك نعبد أي نغسل أي نخصك بالعبادة في كل وقت وأوان وإياك نستعين على أعداء والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على الإيمان صراط الذين أنعمت عليهم من أهل هداية إلى طريق الجنة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 wa xafisa ma awada anna min tawxiidi min waajib umuuri tawxiid mima nantiqu bihi alsinatun wa taataqiduhu quluub wa taamaluhu jawaari salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sidina Muhammad ñaan yàlla di ko sant ci xéewal gi ñu xéewale am islaam waaye bi ñu ñëwee ci islaam ñu boole ko iman mi nga xam ne moo ñu yaral boppam tàggatal ñu boppam ci ay xéewalam waaye nag melokaanu ñu melokaanu jaamu yàlla waaye di ñaan yàlla suñu biir bàmmeel yàlla ñu fekk gàncaxu raaxu ak gàncaxu rayxaan waaye ñaan yàlla mu tëgtal ñu xere ñu ci maandu ak jaamu yàlla ak rafetal ginnaaw bu ñu koy jaamoo pare ñu ñaan yàlla mu saxal ñu ci ci waxtoom yëpp ñu koy matale comme ni ñu bëggee waaye tamit ñaan yàlla tamit mu mësal ñu suñu làmmiñ mësal ñu suñu bakkan waaye mësal ñu seytaane ñaan tamit mu teg ñu ci yoonu suñu sànq waaye ñaan yàlla tamit mu boole ñu ci ñi nga xam ne teg ci yoon ba ñu àgg biir àjjana. waaye di ñaanal yàlla tamit barakallahu mu ci ñi xam ne dañ koy weddi ak ñi nga xam ne dañuy bew mu mel ni fa tabarakallahu ginnaaw bu ñu ñaanal yooyu ñaanal ko mboolem julli nuyu fa tabarakallahu mboolem ummatul islamiya waaye di ci jiital fa tabarakallahu xalifatul am di sëriñ Babacar Sy Mansour atalallahu umruhu wa nasara di ko ñaanal yàlla yàlla dolli guddal fanam yàlla yàlla dolli sàmm ko yàlla yàlla dolli wattu ko yàlla yàlla ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa la ñuy nuyoo Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides ñaan ko moom it guddal fanam yàlla yàlla sàmm ko yàlla yàlla wattu ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi di ko ñaanal di ko ndokkale ci màggal daara bi ñu jógee. di ko ci ndokkale bu baax a baax waaye fa tabarakallahu duñu fàtte sëñ Hamza mi nga xam ne doon na ko defee fii ci Ndakaaru amul yéeneen teew ci ak moom waaye yàlla dogalu ko di ko jégalu rek di ko ñaanal yàlla yàlla doole taxaw ko yàlla doole ko sàmm bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. noonu la ñuy nee fa tabarakallahu mbooleem xalifa généraux yi ci kaw suuf yëpp noonu la leen di la yàlla tamit yàlla dëgëral leen yàlla sàmm leen. nuyu fa tabarakallahu kilifa réew mi di njiitu réew mi di ko ñaanal yàlla yàlla dolli ko taxaw nuyu fa tabarakallahu ñi nga xam ne ñooy opposant yëpp bàyyi wuñu kër yooyu yëpp doo di di leen ziar di leen baax di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla di jéggal di directeur général bi di Serigne Sam di ko ñaanal moom yàlla yàlla dolli taxaw ko ngeen nekk fii seen émission bi al hilm wa taalim fii ci Salam Vision ngeen nekk rek seen soppe Oustaz Ibrahima Diarra ànd ko yéen jeudi bu jot fii ci Salam Vision ñaan yàlla rek lépp luñ fi wax rek yéen yàlla def ko leer fi juum rek yàlla yàlla defal def ko sotti kaw muy al hilm wa taalim ñu dégg mal fa tabarakallahu weeru koor gi di jëm ci chehru ramadan di weeru koor di weeru lakk bàkkaar bu jub bu jublu see nag ñëpp defaruwaat waaw ndax weer wee ko laaj bu ñëwee ñëpp defaruwaat ndax weer wee ko laaj waaye daf ñu war a fekk ci jaamu yàlla yokk suñu jaamu yàlla donte nag mënoon nañoo fekk fu neexul yàlla xëcc ñu ci lu neexul yàlla waaye yàlla daf ni wa maa xalaqtul wal insi illa li yaabuduni binduma nit ak jinne lu dul ñu jaaw kon jaamu yàlla newul at ba at jaamu yàlla nekkul weer ba weer waaye keroog ba nga juddoo la ba ngay dugg bi bàmmeel bi nga nangoo ashhadu an laa ilaha illallah wahdahu nga seede wóol te gëm te dëggal ni amul benn buur bu ñu jaamu jaamu ko mu jëriñ la ñàkk jaamu lor la ku dul yàlla rek booboo bokk ci société bi nga war a doxee nag ñi nga xam ne noonu la société bi bëggee ñu doxee ko waaye ci làmmiñ lañ koy tudd bi nga fasee sa xol ni gëm nga yàlla tudd ko kon cër yi ñoo koy doxee te munoo fas sa xol ni gëm nga yàlla ni ci islaam laa bokk cër bi nga ko tuddee sa làmmiñ cër yi doxewu ko kon mu mel ni fa tabaarakallahu li nga sa sa biir xol tudd ko sa làmmiñ ak li cëri di wane du doon benn te yàlla borom subhaanahu wa taala dafa ne kutiba aleykum siyaam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaxun su weeru koor ñëwee bu tàmbalee ñu génnee yi nga xam ni mooy yëre yiw yi génnee li nga xam ni moom mooy jàllaabe yi ñu daawul julli commencé julli ñu daawul sellal commencé sellal ñi nga xam ni fa tabaarakallaahu lu yàlla xam doy na nekk ci lu leen neex waaye ñu xam ni weeru koor weeru yàlla teddal la weeru koor weeru yàlla màggal la lépp képp koo xam ni koor nga weeru koor jeex bi weeru koor bi jeexee nga nekkaat sa lu bon nag sa weeru koor nanguwul ku sa weeru koor nangu doo def lu bon ndax la'allakum tattaqun la yàlla wax julli bi yëpp tataxuna la koor gi yëpp tataxuna la mu ne kutiba aleykum siyam maa bind weeru koor comme ni ma ko defee woon ni jiitu ci yéen ngir ngeen ragal yàlla kon weeru koor du xiif ak maral doom du xiif ak maral déedéet sa cër yëpp dañoo war a woor du gémmiñ ngeeg biir bi rek moom mooy woor nopp yi daa war a woor tànk yi daa war a woor loxo yi daa war a woor lépp lu yàlla bind ci yow rek danga ko war a wooral waxuma sax nga wooral ko waaye lu ci yàlla gërëmul sax waroo ko def rawatina weeru koor waaye bu weeru koor teroo si jàkk yi commencé fees jours dix jours léegi boo commencé rek weeru koor teru léegi-léegi jàkk yi commencé fees su weeru koor jeexee doo gis ni ku dugg si jàkk yi mu mel ni koor dañuy wax ne julli weeru koor la bu dul weeru koor mën ngaa bañ a julli lépp léegi fii Sénégal ñoom su weeru koor jotee ñu respecté juróom waaye bu koor gi jeexee pare nañ ci loolu ban façon woor la loolu mooy ban façon woor ak ban façon jaamu yàlla waaw ban façon jaamu yàlla la yàlla waxee dañ ko jaamoo noonu su weeru koor jotee kon nga xam ni kon li ngay def nii du lu baax weeru koor jot na nga ne weer bi dañ koy sellal duma ci sol lu bon duma ci sol lu dagg duma ci meesu duma ci def nii duma ci def naa parce que weeru koor gi tax te yàlla ne la sa avis yëpp nii nga war a comporté wee weeru koor amee noonu la weeru tabaski amee weeru gàmmu am ko mais weeru koor chehru ramadan mooy weeru xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy lakk mooy lakk bàkkaar weer la boo xam dafa ñëw ngir ñu lakk bàkkaar yëpp yàlla ci xéewal mu ni première fukki fan yi yërmande la deuxième fukki fan yi njéggal la troisième fukki fan yi ma goreel la yow xaw ma kan mooy demati safara waaye doo dem safara waaye ci ci ki ñuy ni jullit war a comporté fukki yi nee na yërmande la yàlla ni nga toog fukki weer ak ñaar ngay lekk fukki weer ak benn mun la benn weer wii wormaalal ma ko waaye nga mën a wormaalal suñu borom subhaanahu wa taala benn weer ak moom weer wii lii laa ci bëgg nga mën ko koo defal waaye dem na ci ba dem bay sabote yàlla dem na ci dema dema dema dem bay sabote lislaam ñi nga xam ne dañuy g esket sax dañuy tuuteel weeru koor di ci def yoo xam ne yàlla xam doy na xoole xoole en général théâtre kat yi bare bare bare seen mujjub du lu neex da leen di yalwaale nag di leen ketal nag parce que ki ñu déclaré guerre la kii ñu déclaré guerre la yàlla lañ de gis nga mën nga théâtre yeete wax ay doomu aadama leen di jëriñ reetaan loolu nit loolu kenn bañu ko mais lu jëm ci mbiru yàlla yàlla diine dafa sensible papa yi kenn moomu ko yaay kenn moomu ko diine santul mbàkke santul si santul ña santul faal kon boo fi nekkee sa sëriñ nga jàpp ne li ngay def neex na ko ba di ko tudd di reetaan nga sa sëriñ boobu moom diine ji ndax nga sa bopp diine santul mbàkke santul faal santul Seck santul Niass santul Si santul Njaay ñépp ci bokk yam ku ci ëpp ful am sa morom li sa morom amul xool en général ka waxum xool la rek nañu xool ci nañu xool artères yi ay xale ngeen nañu xool théâtre kat yu bare bare bare seen mujjub jundu dañ leen di ketal ci télé yi de leen ketal ci rajo yi ay nii lañuy mel dañoo sonn dañu li lan la ñuy defal Sénégal lu dul naan dañuy jéem yàlla ne na inna al insaana la yaddaxa an raahu staxna inna ila rabbika rujaa am ñoo xam ne ñoo bew nga jël diir yi lu mel ni wéeru koor jël ki nga xam ne day représenter l'islam ñoom Sénégal dañoo jàpp ne oustaz dafa tuuti wala imam dafa ndaw ndawul Seydina Muhammad moo ne al ulamaau warasatul anbiyaa yi ñii ñoo don ñii ñoo ma donn ku doon na rasulullah ne kooku tuuti woo ku donn Seydina Muhammad kooku doo ko ndaw kon bu la bëggee kale bu la bëlee bu la bëlee caricaturé di sol ay yére ay ustaas bu woor di doxaan ak ay imam bu wóor woo xale bu jigéen fii ñu koy théâtre ci bëgg ci wéeru koor ay sàcc ay lekk nit ñi di ko seetaan di xaxatay nga am ñoo xam ne seen xel dafa neex a këf jikko yu xob la ñu yor nga influencé la ñu def def loolu après nga yaakaar doo ci am bàkkaar lépp lu baax lu leen di toppandoo dina ci am yiw waaye lépp lu bon lu leen di toppandoo ci am di nga kon weeru koor du weeru saboté l'islam du ku bëgg théâtre mën ngaa théâtre ku bëgg yeete mën ngaa yeete ku bëgg def leneen mën ngaa def leneen waaye nga bàyyi fi diine ji bàyyi fi borom bi subhaanahu wa taala fi karikati buñ fi théâtre woon léegi maam borom Tuubaa léegi murid génnee seen paak seen jaas daw songal ñu karikati def alaaji Maalik léegi léegi tijaan yi daw ñu caricature léegi xaadir yi léegi léegi xaadir yi doon songal waaye bu ñu caricature l'islam ñëpp ay banque seen loxo di xaxtaay moo tax Cheikh Omar Fouti waxoon ne l'islam amul baay ana baayam kenn ku ne fii tey ci Sénégal yaa ngi protéger sa kër baay sa kër maam mais diine ji kenn protéger wu ko buñ fi buñ fi théâtre léegi léegi toppandoo maam borom Tuubaa def naka sunul noonu léegi yéen di commencé génn buñ fi théâtre léegi léegi toppandoo saboté Cheikh Seydi Hadj Malick léegi cooli baay waaye bu ñu karikatiree lislaam saaga lislaam théâtre lislaam ak oustaz ak imaam yi ñépp xaxataay di leen ay caga lañ ñépp yow gëmuñu dara te ki ngay xas noonu buur booy buy tudd moom ngay woo ki ngay xas noonu moom ngay woo ki ngay xas noonu boo deelee taxawaat ñëwoo taxaw sa kanamu bàyyi ni ko jullee ko moom ngay woo ne ko imaam jullee ko kon kooku du ngeen benn yéen ñaar kooku war a ko karikatiré rawatina weeru koor kon weeru koor weeru jaamu yàlla la pour ragal yàlla képp ku wóor weeru koor ba weeru koor bi génn nga delluwaat sa na nekkoon sa koor jàpp nanguwul ku sa koor nangu su weeru koor bi génne noonu ngay continuer noonu ngay comporter ba yowal xel ndax la'allakum tattaqun bi ko yàlla indi ko indi ngir ñu ragal yàlla kon fa tabarakallahu la ñu cër la woon ci waxtu bi mat na di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu jàmmi ànd ak jàmm àllaaxira def ñu dégg-dégg jullit jéggal ñu suñuy bàkkaar ñaan yàlla télé bi yal na yàlla yokk ko yokk ñu fi nekk ñëpp di nuyu tey ki doon réaliser émission bi di Serigne ko ñaanal yal na yàlla ko taxaw yàlla doole xam ne rek yaa ngi liggéeyee di nuyu di ziar Serigne Diagne Bousso nekk ba Kër Massar di sët ci maam ko ñaanal yàlla suñu soxna soosu maman Aara. nuyu suñu yarbaat boobu ko ma suun waaye ñu fàtte bàyyi galas galas euh, yàlla yàlla dolli sa teraanga gis nañu xéwal yi bari na trop trop trop galas yàlla yàlla taxawu na li fi nga nekk foofu sa Italie yàlla yàlla jàppale la ngay bàyyi papa Cheikh Niang chéri Adja maa ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax sama làmmiñ bi yàlla mu doon lor ci yow yàlla yàlla taxawu la yàlla yàlla sàmm la teraanga bi bari na bari na bari na bari na bari na bari na bari na yenn yàlla gën a gudd sa fan noonu la ñuy nuyoo dabañaan noonu la ñuy nuyoo tabarakallahu mboolem famille ña ngi nii yëpp waaye duñu soo da nekk ba idaara moom it di soxla si suñu sëriñ sëriñ Babacar dañ koy ñaan bu baax baax yenn yàlla taxaw ko sëriñ yu baax yooyu waaye di ci jiital di ko ñaanal yàlla yàlla nekk ba dagal taxaw ko sàmm ko wattu ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu lay ñaanalee sama wéyum bu jigéen tabarakallahu di sama yaay Kolle yal na ko yal na yàlla sàmm ko famille Moussa Diarra yëpp maa ngi di nuyu jël nuyoo bi ci loxo fa tabarakallahu Thierno Diarra du ma fàtte sama papa Mor papa Mor Pouy maa ngi lay ñaanal yal yàlla guddal sa fan di nuyu di ko ñaanal yàlla yàlla taxawu ko soxna may sama xarit sama yal na la yal na yàlla sàmm yal na yàlla la. bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak moo gën a suy rek longue vie à l'issue sa anniversaire bi ñaanal la la longue vie santé bu la réussir santé yaa xam ni ñu bëgg yéen yàlla defal loo sama papa ju baax jooju loolu dul doy ñoom lay ñaanal yàlla yàlla taxawu la di nuyu nag waa mujaahidiina nuyu waa waa sopp da baax nuyu soxna naan borom jasneer yi nga xam ne day jasneer musal moom ko jox soxna naan yàlla yàlla wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.